waa Gambie yëpp du nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu tamit waa Vice FM comme ni ma koy waxee gàmbi la nekk Mbirkelane FM nekk Saloum ñu ngi leen di bégge bu baax a baax di leen ziare waaye nag duñu ñu fàtte suñu père Edy Dione ak suñu père Ndongo Cissé moo ngi fa dem nañ fa seeti ko ànd ak liiru jaan ñoom jameekee ñun ñëpp ñu ànd dem seeti ko ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko ñaanal nag wér bu baax a baax yàlla defal ko sutura ndax yaram bi dafa xawoon a sutante ñu ngi koy nuyu di ko di nag nuyu ñi nga xamante ne ñoom lañu àndaloon ñëpp Lamine Samba wulli ñoom Seex ah, ngañ dem ba borom géejawaay ñu nekkoon bokk benn hôtel vraiment waaw mu neex trop macha allah ñu liggéey di xaar nag incha allahu rabbi le 28 mars am na nu muy demee sax combat bi ñu bëri ko avant le 28 parce que boo xool Gambie ne fa Sénégalais di duggee affaire politique politicien tax na ñuy wax ni bu passé le huit dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tëjaat programme yëpp waaye ak lu mën a xew Jamaïcain ak stafam ñoo ngi xool naka lañuy def pour tëgg combat bi avant le le le vingt huit mars boobu noonu yàlla na yàlla sotti lépp balaa boobu tamit yàlla na solution am ba waxi tëj yooyu sax ñu dellu ci ginnaaw. am na solo torop ngelaw lii mi ngi si bagaam bi wala poussière bi. non poussière bi moom fii laa ko yëgee ba ma duggee euh, Sénégal moom laa gis ne dëkk bi poussière na xaw ma woon sax lu xew vraiment après kii am na maanaam suñu mbokk catholique yi dañuy dugg ci li nga xamante ne mooy seen koor. waaw waaye nag fii laa ko yëgee moom. ci réew mi nga ko yëgee am na solo torop journal bu suñu làmb la ñuy daal di ñëw ak yow mu daal di indil ñu Tapha Tine ak booy Niang am ay question yoo xamante ne nii laajte nañu ko ginnaaw trajet bi nga xamante ne nii jaar na ci digganteem ak ki nga xamante ne nii moom mooy Elton ak digganteem ak Bombardier mu nekk ñaari combat yoo xamante ne nii mun nañu ne mbër yu ragal Tapha Tine yëpp ci ñaari combat yooyu la ñuy jaar ragal ko. ci wàllum xeex moo tax ñu ne Boy Niang numéro 2 est-ce que jaadu na pour mu privilégier xeex bi ci digganteem ak Tapha Tine. journal sunu lam moo xëy samp ab laaj ginnaaw ginnaaw Tapha Tine bi mu wanee boppam ci digganteem ak Elton wane boppam ci digganteem ak Bombardier ci xeex ndax booy xool ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk daanu la waaye dafa am fu mu jaar ak yow ci côté am njaay joxal jóob ba ba ba nga abandonné wala boog ba arbitre bi tas li nga xamante ne moom mooy combat bi moo tax journal sunu lam xëy samp ab laaj di ragalal loolu ki ne moom mooy Boy Niang di wax ni ndax Boy Niang mën na def. en face ak tafaatin xeex ak moom samp jaaga journal sunu làmb laaj boobu la xëy samp waaye nag yaakaar naa ne lu war a mën a nekk la bu fekkee tamit li ñu wax ni ba ni Boy Niang ba mu amee 10 ans ba léegi moo ngi jàng xeex kon yaakaar naa ne xeex boobu kon kenn waru ko koo dàq donte gisuñu ko mu wane boppam bu baax a baax ci xeex wane boppam mooy gisuñu ko mu arbitre mu mu xeex comme niñ koy gisee ci Gris Bordeaux comme niñ koy gisee ci Tapha Tine comme niñ koy gisee ci Mariña waaye benn affaire bu am solo boo xamante ne seetlu nañ ko mooy jafe jafe na touché lool waaw defe naa touché te xeexu booy Niang ak xeexu Tapha Tine du benn. xeex bi du benn moo tax boo xool coach su jabong mi nga xamante ni moo ngi depuis France di coach maanaam di spécialiste ci sport de combat comme sport de yu bare bare mu am ci xam moom coach su moo tax journal bi xëy samp laaj bi wax ko lan la ci xalaat waaye nag la mu jàpp mooy Boy Niang mën na xeex bu baax a baax ak ki nga xamante ni moom mooy di Tapha ndax boo xool sax boo gisee moom argumenté na ko nee na nag ci côté boxe sax. xeex bu set boo xool nee na jàpp na ni booy Niang moom moo ko dàq ki nga xamante ne moom mooy di tafaatin waaye nag la mu war a moytu nooy mooy mu fexe ba kor ko jàpp na ne booy Niang moom Tapha Tine su korul yenn coup yu impact du ko dóor loolu te nee na dóor déplacé la gën a man ndax bu deful bu dóorul déplacé wu maanaam ay gauche droite gisuñu Tapha Tine di ko xeex noonu. ay benn benn wala góor dóor gauche jóge fa wala dóor gauche dem jëli Boy Niang numéro 2 moom moo ko gën a privilégié mais Tapha Tine xeexam yu ci ëpp Lamine bu la dóoree day profité ak yow pour koor la. Mhm. boo xoolee moog Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye koor bi la doon njëkkante ak moom. Mhm. ba xaw ko cee dominé. mbaxaw cee dominé mbaxaw ko cee dominé boo xool tafaatin am na xeex bu doon xeex sax gis nañu xeexatu ko mooy dóor déplacé wu dóor déplacé wu moom tafaatin ci ñaari combat yooyu noonu la gën a gën a a activé woon ci xeex bi nga xamante ni doon na ko def diggante mu bombardier comme ni ko Abdoulaye Dembale bindee ak digganteem ki nga moom mooy daal ko su jabu moom la nit di ragal boobu noonu wala boog di ko ragalal ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang ñemeloo na ko ko jàpp na ni daal na xeex ak ki nga xamante ni moom moo di tafaatin waaye nag am na yi nga xamante ni war na koo mën a moytu moytu ci digganteem ak Tapha Tine mooy jàppante xeex. jàppante xeex war na koo mën a moytu ci relance bi ci li nga xamante ne moom mooy habitude bu ñu gis ci Tapha mooy habitude bi ñu gis ci Tapha Tine mais combat bi xeex yu xeex yu métti yooyu sax man man man man yaakaaruma mu am ci. man yaakaaruma mu am ci gëmm nit ay Boy Niang jàpp na ni solution bi mooy taxaw di joxante ak ak li nga xamante ni moom mooy ay am njaay joxal yëpp boo ñaa boo xool ay combat yëpp ba am ba am wala mu mu mu ñàkk combat boobu ak lu mën a xew daal man personnellement xaaruma ci xeex bu intense. en tout cas daal li ma wóor ba loolu wóor mooy bu ko Boy Niang dóoree coup bu dal du ko fa xaar dina ko jëli. waaw du ko du même bu ko Tapha di dóor su ko dóor su ko dóoree coup dalul sax. booy ñaa euh, euh, du ko fa xaar ak lu mën a xew daal Tapha Tine heure buy dóor man li ma jàpp heure buy dóor booy ñaa na fexe ku ba mu koy dóor mu dal ko loolu man loolu laa jàpp heure bu koy dóor fexe ba ku ba mu koy dóor moom na ko daal ndax booy ñaa bu bu dóoree day ñëw boo ko dóoree tamit day ñëw parce que booy ñaa dafa bëgg mbër boo xamante ne da ngay da dal ci kawam. booy ñaa parfois sax danañ wax dafa défensif mais ñi seetaan ay combat préliminaire am wala combat yu ndaw ñoom mbëri ñu daan moo leen songe moo leen mais attaquant la. mbër la boo xamante ne nii Lamine heure bu jëlee jee ba fekk dara te bu fa fekkee dara dina ci nga xamante ne moom la war a def mu nekk mbër boo xamante ne nii mbër mu jar bàyyi xel la ci géew. est-ce que mas naa jàpp mbër mu rëcc. a jàpp mbër mu rëcc. mbër ñëpp képp comme ci mas a songu bu la jàppee rëccoo. te dafa bëri ay façon clé yi muy bëriwee tànk ay caxabal ay wëndeel lépp du koy bëri. day def di dindi di def di dindi di def di dindi waaye est xam nga ni ko daan ñëpp dañ ko songu waaw ama neex da koo song stade Demba Diop weñ ko. Zos daw jàppante ak moom plaqué ko dàq ko boo xool même wul sax. ñu ñu ñu ko dàq ñu maanaam ñu daal ci kawam dàq ko ñëpp dañ koo daan waxuma nag ne dàq kook ay gauche droite képp kuy dal ci kawam ci ay gauche droite amoo sens ci combat moom daal booy bëri moom fexeel ba jàpp mais am na lu mu war a moytu moom tamit bu baax a baax ci Tapha Tine. bu ko Tapha Tine takkee làmb ji day jeex. plaqué palaake mais Tapha Tine gëj naa plaqué. mais gëj naa mais mën naa plaqué alkaati du bàyyi dóor. plaqué plaqué gis nga plaquage boobu Tapha Tine mën na ko cee daal. boo xoolee takk ba mu takk booy say keroog stadium Iba Mar Diop ci stade Iba Mar ba nga xam ne mbër la moo xamante ne nii am na lu mu mëne ci làmb te day mboot mhm. ba tey ci journal bu suñu làmb Lamine mu daal di ñëw ak ñun ci combat bi war a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier revanche mhm. Gaston Mbengue le bëgg naa tëgg combat boobu noonu après weeru koor bi. après weeru koor bi moom la bëgg a tëgg combat bu Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier aura lieu après le mois de Ramadan ñuy ñaan yàlla tamit. koor gi ñëw jeex ci jàmm incha allahu rabbi fekk corona bi jeex taal yàq jeex tàkk tàkk tàkk tàkk ba huis clos di ci waaye ak lu mën a xew daal Gaston Mbengue moom gannaaw ba mu paree ci Lac de Guiers numéro ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène pare pour tëgg ko le avril ñaari mbëri ku ci nekk nekk sa ruq di entraîné ñi moom buñ fi jógee nañ commencé entraîné ndax Gaston nee na buñ naanee ndox buñ waree danañ danañ leen danañ leen boole ñu bëri ñoom ñaar yaakaar naa ne loo xamante ne nii Lamine état bi da cee war a gën a dugal loxoom ginnaaw am na yu bari yu ñëw ci réew mi mm-hmm. bu yooyu yëpp jàllee lamb ji war nañ cee wax ay waxam parce que bu demee ba Gambie nar a nangu lambu Sénégal mm-hmm. promoteurs yi di fa dem yenn mbëri di ndaw yi di fa dem itamit nañu bàyyi nit ñi ñu dem ci seen liggéey nañu bàyyi nit ñi ñu dellu dem ci seen liggéey loolu la ñuy mujjee def rek ak lu mën a xew moom foog ñu bàyyi nit ñi ñu dem li nga xam ci ci li nga xamante ni moom mooy seen liggéey moo tax Gaston Mbengue ak yeneen promoteurs yi ku ci nekk ne yaa ngi def say pexe di xool ni ngay tojee sa bopp ji Gaston mu ngi wane boppam la ñuy xaar tamit ci yeneen promoteurs yi état na leen leen motiver leen ba ku mel ni Pape Abdou Fall tëgg ni yàgg na trop muy combat Papa Sow ak vraiment muy muy muy muy nekk promoteur boo nga xamante ne nag vraiment bi fi nekkee ba léegi moom musul nangu làmbu dee musul gëm ni làmbu day dee boo xool chaque année sax da doon tëgg da def le tout pour tëgg combat bu mag parce que boo xool dernier combat moo looyu moo ko doon tëgg digganteem ak Gris Bordeaux yaakaar naa digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 lépp rek pour sauver honneur u làmb Mhm. kon yaakaar naa ne moom tamit képp ku ñu jàppale rek moom war nañ ko mën a jàppale ki tëgg tamit combat royal bi di Luc Nicolaï tëgg combat bi nga xamante ne tey demande sociale la muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo état na tëddee njaaxaanaay ci diggante promoteur yëpp moo xam Fallou Ndiaye la moo xam Prince la moo xam Assane Ndiaye la moo xam Yadaali Ñing la moo xam Baba Diaw la moo xam moo xam waa Atlantique authentique ak promoteur yi maanaam nañ rent ñoom ñëpp maanaam état nañu tëddee njaaxaanaay bañ a xool ku leen faral wala ku leen faralul ñi nga xamante ne dañoo génnee seeni million def ko ci benn journée ñu jàppale leen épaulé leen ba ñu tëgg seen combat yooyu ndax yaakaar naan tamit ñoom état tey nit ñi maanaam métti bi ñu yëg peut-être ñoom duñ ko yëg. duñ ko yëg parce que duñu wàcc sur le terrain. duñu wàcc sur le ñoo ngi jot ci seeni salaire yu baax baax a baax kon nañ jàppale promoteurs yi te dee njaaxaanaay xool ma Samba wala ma demb kii contre nañu mas naa wax ministre bi lu ñaaw wala kii mas naa wax ministre bi lu rafet nañu xam ne réew mi moo leen war a ñor ñu jàppale promoteur yëpp ku ci nekk organiser say combat ndax Papa Sow ak Siteu tamit sonn nañ vraiment. sonn nañu torop Lamine moo tax journal bi ñëw ak ñun ci Papa jaar jaar bi nga xamante ne ni jaar na ko ak waa Pikine. Mm. ñu ne Papa Sow booro des de Pikine. Mm. ginnaaw bi mu fa daanee tonnerre. daan fa Boy Sey daan fa Bathie Seras. dafa wane boppam bu baax baax ci digganteem ak ñu waa mbooru Pikine yi gannaaw ba mu fa daanee comme ni nga waxee Boy daan fa daan fa xalifa kii nu mu tuddati Cheikh Ngiraan Bathie Seras Tonnerre ak ñeneen ak yaakaar naa ni daan daan na fa Aliou Mané sax waaye boo xool Papa amoon na six combats ci waa Pikine am fa six victoire maanaam moom bu fekkee dañuy wax. tey benn benn Boy Niang bête noire waa Guédiawaye la wala ñu ni tey Modou Lo bête noire waa Fass la kon Papa Sow jàpp ne bête noire waa Pikine la ndax defoon na fa six combats six victoire septième combat bi mu waroon a dox ci diggante ba ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé mu amoon le 17 février 2018 bi ci la ko Ama Baldé stoppé woon fële ca Pikine waaye ak a xew daal moom moo dóor waa Pikine 6-1 yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni lu am solo la derby Fass Pikine Lamine yàgg na ci làmb mu nekk derby boo xamante ne ni derby bu neex a neex la réparé raqu marle hmm. nekk xale boo xamante ne ni itamit avenir am ci làmb Lamine mi ngi ci kanamam moo tax journal bi fësal ko moo tax journal bi fësal ko ma nga fële ca Gambie gis naa ko fa ca benn mbapat boo xamante ne amoon na mbapat yoo xamante ne nag Omar Diop loolu la ñuy wax róof da jàpp ba pare arbitre soo koy ciblé boo xool gannaaw combat bi sax dafa yàqul bu waroon na dox ci diggante bekkaay ak gaynde ndax bekkaay moom daa ruuf ba pare ndéngeen te loolu dañ koy bañ waaye nag fekk naa fa ki nga xamante ne moom mooy moom mooy rakku marle bi nu mu tuddati réparé ma ngay waajal bu baax a baax digganteem ki nga xamante ni moom mooy teq eh, nu mu tuddati teq jël yaakaar naa ne nekk na lu am solo daal mbëri yi Lamine na ñuy waajal seen combat parce que am nañu yaakaar que ni dinañu bëri kon seen yaakaar warul tas seen yaakaar warul tas li ci tax mooy état jàpp ci bu baax a baax ba seen yaakaar yooyu noonu du tas Omar Diop yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni lu am solo la leeral li loolu rek la woon waaw leeral li loolu kese la woon Omar Diop wala mel ni ku sonn damaa sonn nag Omar Diop kañ ay 5 du matin la départ waaw kon ni may vocal yaa ngi xëy na mën naa nekk nga yegg ba c'est que yoon bi dafa yéexoon bi pas ay 15 heures et quelque 16 heures. mu mën na da ngay xaar Wally Seck. Eh, lu may def ci Wally Seck ba maa ngi nuyu Omar Diom ñuy suivre Lutte TV point com yëpp man moom wa waaleeg. xanaa liggéey liggéey. gone waale yee nga man du ma gone waale sax moom mooy du ma gone kenn waaye ak lu mën a xew daal. Hmm. man mën naa fa dem mën naa faa dem su ma amoon accréditation su ma leeroon ne su ma toogee am accréditation mu jëlee la élément yi mais. gars yi dañ lay xaar roo jour yi ñu ñu changé dañu changé kanam sax nu mu tuddati ponkal boobu tamit taxaw ci ci porte bi. Thierno Gadiaga. Thierno la waaw Thierno. gis naa ko man ko yow jour jour jour jour soirée yi da ngay ceeñ. Thierno day ceeñ Fifty day ceeñ. waaw ah. doo leen gis doo leen gisee sax doo leen xàmmee. mais sax moom du ci boole naqari dara wax naa ko yow nee naa ko nag da nga ceeñ mais doo ci boole naqari dara. da waxtaan ak yow. Ah. ci ordre la ñuy dox nag. Hmm. yaakaar naa ni tamit. leeree nga foofu de. or yooyu noonu nag man li ma lay wax chaque jour rek njagu euro na la na la na la jox maanaam li nga yelloo li nga yelloo parce que mënul fu waale di def social mu lay woo nga fay dem ba pare nag bu dara desul lu dul ñu ne aywa nañu rende nag bi séddale saami. ñu lay ñu lay ñu lay këll këllee loolu moom chaque jour ma bañ loolu ko. yaakaar naa ne moom dëgg rek nga wax gu wër péng waaw ah, waaw kay na ko dégg nag moom Diago Euro incha allah ñu ngi nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp fu waay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di nuyu waat waa Gambie rek comme ma koy waxee di nuyu sama yaay ji Adja borom Angleterre di nuyu tamit sama yaay Jali Jammeh ndax Gambie dama faa dem tey ji bari fay yaay trop ci nekk naan ma yaay sama caat ñi naan ma sama caat ñi naan ma sama taaw ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziare aji ay Jali Jaame doomu nday aji Fatou ak Malène Diagne ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ko ziyaare di nuyu Babacar Sarr borom Birkelane FM waaye groupe Lutte TV namoon naa leen yéen a ma raw Omzo bu Garga tuuti yaay Sarr Serigne Ndiour bu Osodou di nuyu Mor Jaxate depuis Brésil ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñooy commentaire Cheikh bas borom Kër Massar ñu ngi koy ñaanal tamit seet bi yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla jubóole leen ubbi seen wërsëg bu baax a baax incha allahu rabbi Amadou Sow Xatab Diouf naa Aline borom jaasi ji Omzo bu Garga Birane Mbeng Idi Si Abdoulahat bu xarañ loo maa ngi lay bégge bu baax a baax Dame Mbeng Mor Jaxate ñëwaat noonu Abdoul Mbay ak ki nga xamante ne mooy Assane Yaale premier commentaire ñu ngi lay bégge bu baax a baax di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Pape Cissé doomu ndayu doomu ndeyu Mama Lamine Sarr Mama Lamine nag moom léegi diggante Gambie ak Sénégal moom lay dem va et vient ñu ngi leen di bégge bu baax a baax di leen ziyaare waa top 5 fitness top 5 musculation postu Caaroy la nekk terrain Ndiayène boo bëggee am doole dëgg dëgg dëgg demal foofu postu Caaroy terrain Ndiayène top 5 fitness top 5 musculation di nga fa fekk ñoom ndo di nga fa fekk ki nga xamante ne moom mooy Thomas Cheikh Diouf di nuyu Ndoore alam daar maa ngi koy bégge Ramdan Fakhoman bu mag a mag bi da doon bëri fii Sénégal nee naa ko nag ñu fi mas jël tournoi yépp dañoo nekk roi des arènes yow yaa jël yow yaa fi dem ba final ah génn première sa poule ñu doon xaar tey parcelle am ceeb yaakaar nga bàyyi dem fële ci États-Unis waaye nag nee na nee naa ko nee naa ko boo ci def baax na comme wutum dërëm la rek làmb ji wutum dërëm la football ba wutum dërëm la foofu nga nekk tamit di di def li nga xamante ne moom mooy manqué naa wutum dërëm la ak lu mën a xew daal ñu ngi leen di bëggee di leen ziare di baalu ñëpp ak fëgg la maa ngi koy bëggee di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy sentel foog ma jël ko live moom tamit ko su jabon Mamadou Aliou Ndiaye champion du monde di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi